Hi. Hello. How are you? Thank you. képp ko bëgg a dégg anglais comme ni ko président Bassirou Diomaye fay ji waxee demal seeti fluency in English mooy ñi nga xamante ni dañu lay jàngal anglais moo xam nga ñëw wala sax ñu defal formation en ligne ñoom nag am nañu représentant fépp ba ci sax Sénégal wala Rwanda wala fépp ci àdduna bi ñoom ay professionnel lañu yoo xam ne dañu cee ay lool ba noppitam yàgg ci kon nag yéen ñi bëgg a jokkoo kook ñoom woote leen gaaw ci numéro yooyu. ngeen jëf ami internaute bu Dakar Live TV saa su ne mbégte ak contentement moom lay am su ma waree jàkkaarloo ak yéen te yaakaar naa yéen tamit c'est réciproque comme ni may dalee noonu la leen di dale à chaque fois ba leen ma gisee may doxantu di dem fekk ji ay célébrité fas yéene di sekk ak ñoom ay waxtaan euh, tey nag ma daal di dem fekk ji koo xamante ne nii il la toile ba léegi sax il la toile sur les réseaux sociaux mu nekk sosie si nga xamante ne nii mooy Maria Sin may sa biga maar euh, sosie ki nga xam ne moom mooy Wally Ballago Seck dëggal boppam muy Wally Bambay Wally Bambay nuyu naa la euh, maa ngi lay fay di leen jaajëfal mhm. di rafetlu seen teewaay mm. euh, di nuyu suma xarit mm-hmm. suma doomu nday Babacar mm. euh, di nuyu Maodo mm-hmm. borom Mixa mm-hmm. borom appartement yi nga xam ne appartement bu mu joxee baaxut di nuyu sëñ Cheikhouna sëñ bi di leen jaajëfal daal d'accord euh, Waly tey jii ma daal di toog namm la gëj la gis moo tax ma déplacé wu ànd ak waa Dakar laay fas yéene ñëw seet si la mais lan moo waral absence bi Waly waaw absence bi du dara lu dut Euh, nekk sa ruq mhm. di liggéey rek mhm. ah, parce que boo demee ba def li nga war a def yëpp mhm. da ngay toog sa coin nga liggéey da jàpp ne da nga war da nga def li nga war a def yëpp waaw ah, li waroon def yëpp def naa ko comme lan xalal naa xale yi ñu ñëw wane naa sama bopp li des mooy liggéey bi rek nekk ci mais Wally genre man su man la dee dégg xam nga li expression boobu xale yi naan la star qu'il pense être yow moom nga parce que boo ma ne da nga toog sa rukk euh, bàyyi xale yi ñu liggéey te man li ba ma fi ñëw xale yi dañ ma yóbbante ne ma carrément Wally la moo tax ba mu commencé carrière ba léegi defagul son à part reprendre dëggal boppam def ay concert bi bi bi c'est nag euh, parce que mhm. ci loolu laa nekkoon moo tax ma ne la dama làkkatu sama roq di liggéey bientôt dinañ gis lu yéem mm. lu jaaxal Sénégal yëpp lu jaaxal Sénégal d'accord euh, balaa may gën a xuus si bi waxtaan bi damay ñëw ci sa début carrière Euh, Wally tey jii nii est-ce que boo mu mënee ñëwaatal ci li nga xamante ne moom loolu poussé pour nga dugg ci musique balaa may ñëw sax li tax nga copier style Wally ko Seck lan moo la poussé pour nga dugg ci musique waaw mbiru yàlla mbiru yàlla du ànd ak pënd te du ànd ak maa tax mhm. am na mbir yoo xam ne boo ciy dugg li la ciy dugal sax yow doo ko xam ciy dugal sax yow mhm. doo xam ne lii moo tax ma dugg ci lii mhm. waaw ñu bëgg ko affaire bi opté ko musique euh, xool style bi mu neex ni mhm. ñu coppi ko ba suñ borom nag mhm. dogal mhm. boo xoolee moom rek xool ñu gis suñ bopp si bopp si moom donc Wally Ballago Seck moom moo def ci yow musique kon euh, à part Wally Ballago Seck yow daawoo way daawoo toog sa xel nekk ci way wala nga amoon beneen style avant nga koy copier moom moo tax nga dugg ci way wala waaw man nag euh, daanaka daan naa kuréel sax xasida ay way moom tàmm nañ ko te dañoo nekkoon ci kër géwél euh, way moom du bulet ci nit Mm-hmm. wante li tax ñu gën cee copié wu. Mm-hmm. c' est grâce à Wally Seck. Mm-hmm. moom lañ copié wu. ba way nekk ci ñun. nekk ci yow d' accord Wally ci biir loolu euh, Sénégalais yëpp ci biir réseau yi naan euh, Wally mi parcours am du yàgg maanaam benn affaire la rek buy tàkk après fayaat lan nga gis ci loolu. ah dañoo néew xam-xam rek gàtt gis-gis. mais Wally ku ko gis. Mhm. ni mu doxee woon bu njëkk. Mhm. ak ni mu doxee nii. Mhm. ak ni muy demee yëpp fi nga gis lépp Wally dugg fi. Wally dem na Gambie. gis nga ni ko def. dem na Mboro gis nga ni ko def. dem na cees gis nga ni ko def. dem na saint gis nga ni ko def. def na Tamba gis nga ni ko def. boobu ba léegi gars yaa ngi wax te moom mi ngi continuer liggéey. def nga tournée nationale def naa tournée nationale. dem naa Thiès dem naa fu ne. xam nga te te am na yeneen ak yeneen yu des am na ay contrat yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi ciy waxtaan. sottee rek. dinañ dem jouer ko ñu ñuy gis. son yaa génn. Mm-hmm. soirée yi ñu war a tëgg fii mu ngi fi. kon nekkul woon benn bat buzz boo xam ne da ko bëggoon créer juste pour am benn célébrité. pour gars yi reetaan après nga duggaat sa recours. non non carrière dëggantaan la boo teg. carrière la buñ teg. Mm-hmm. di ci liggéey. Mm-hmm. te biento ñu ngi dem studio ci Paris. war a am lu ñu fa travailler. Euh, ñu xam ne ñun dañuy liggéey. waaw ah, ñu xam ne ñun dañuy liggéey pire maar tamit. sama waay suma lépp. Euh, suñu patron. Mhm. suñu kilifa suñu lépp. Mhm. Mm, am na loo xam ne bëgg naa cee dox ak moom. Mm. waaw côté boobu dinaa ci ñëw loolu mm. gën naa tax tax tey ma fekk si la. Mm-hmm. mais Wally euh, tey jii nii ba nga waxee sax ci biir maar euh, sa diggante ak Mar Yacine sa diggante ak ki nga xamante ne moom mooy sa idole. Mm-hmm. parce que man damay jot ay rumeur lu ci mm-hmm. mel ni Wally Ballago Seck jàppale bi mu waroon def ci Wally Bambey parce que gis nañ nga def ci ay concert jàppanteek moom ngeen akolaatante nga nga am contentement ku xool sa kanam yi xam ne da nga ciy yëg plaisir. Hmm. mais est-ce tey jàppale bi waroon ci sa diggante ak moom jàppale taxaw ci côté bépp fësal la di la invité est-ce que loolu def na ko. non loo gis rek par période la. Hmm. loo gis rek doo tëb a tëb rek euh, lépp lépp ñëw. Hmm. par par étape la étape par étape étape par étape. te ak moom ñu ngi déggoo. Euh, te am na ci yoo xam ne ñu ngi ci jëm. Mhm. waaw yàlla baax na daal nañ dem rek. kon li gars yi nag ubbilu la ay portam loolu noo ko gisee. les portes sont ouvertes. non waxuma les portes sont ouvertes dama ne gars yi nee nañ Wally ko Seck dafay ignorer Wally Bambaye. maanaam ubbilu ko ay portam da koy fekk ci concert mu koy ñàkkal fayda di ko humilier. non loolu amul loolu xam nga nit ñoo xam ne euh, dañuy jaloux. Mm. ñooy wax loolu. Mhm. mais fi may waxanteeg moom. Mhm. ak fi may déggoog ñoom ñoom duñ ko fekkee. Mm, yéen a ngi wax ci suuf. maa ngi numéro waxtaan. Mm. mais est-ce que boo waxee tey yaa ngi numéro am yéen a ngi waxtaan ba yéen ngi préparé ay projet ñeneen mm-hmm. wàll yi est-ce que duñ ci gis seen bopp. est-ce que jàppoo ne dañ daf la favoriser. non non c'est pas di favoriser. Mm-hmm. parce que euh, gis nañ li ma def su doon du man mm-hmm. am na yu bëri du am. ay confrontation ay yeneen affaires yoo xam ne yëpp am. ak wàll yi nga xam ne yëpp xam nañ leen c'est grâce à moi ñoom ñëpp damay déggante ñoom dañ may woo. dañ may mm-hmm. remercier di ma jëfal mm-hmm. xam ne lépp man la man lu ma ci am. Mm-hmm. te ñoom sax daanaka ñoom amuñu ko ci. dañu xam ne man maa ko mérité yow yaa ko njëkk lii wala Wally Thiès parce que man damay dégg ñoo ne Wally Thiès moo njëkk a Wally Thiès je sais moom moo njëkk a créé style Wally après yow nga toppandoo ko yéen ñaar kan moo ci toppandoo. non Wally Thiès euh, comme ça dafa gis Wally opté ko bëgg ko. moo ne ma gis waale opté ko bëgg ko di ko rek mhm. affaire yi noonu la rek mhm. amul kii moo njëkk li ñun ñëpp bañ ci dugg yooyu taxuñu dugg ci mhm. waaw yooyu yëpp taxuñu dugg si nit ñi nag ñooy waxee ne nii mais réeréwuñ fen man waale yëpp damay déggante ak ñoom xam nga ñu may remercier xam ne am na yu bëri su amee c' est grâce à à toi waaw su ma ci yëkkati woon ay kër ay oto sax am ko ci ñoom on est que man maay waral lii lépp moo tax li ma ci am maa ko mérité mm-hmm. yeah c'est ça d'accord côté boobu dinaa si ñëwaat mais Wally tey jii nii li waral déplacement bi parce que au début ba ngay doog a kii ñëpp xam nañu sa base Bambey la mm-hmm. mais dafa mel ni succès bi dafa commencé jub nga bàyyi bàmbay ñibbi si Dakar lu waral loolu non man bi ma ñëwee dakaar yàgg na parce que avant tabaski ba léegi mm. maa ngi Dakar fi laa basé wu yow gis nga ñu bëri nekk fii Dakar di te seen dëkk ñii ngi dëkk Kaolack ñii ngi dëkk cees ñii ngi dëkk fu ne xama mais ñi ngi dakaar def seen base di fi liggéey ba ki fi topp président dëkk fi xama noonu la demee rek liggéey moo lu yor rek. yàlla dogaloon ne dina ñëw xam ne musique bi moo laaj nga ñëw Dakar la. waaw fii mooy capital bi wala. Hmm. ah ñun ñëpp senegal lañ dëkk. Hmm. mais fii mooy suñu capital. Hmm. ah jeex na. Wally balaa may ñëw ci li nga xamante ne moom la la Bibiche wax parce que keroog def naa émission ak Bibiche mu yekk la loo xamante ni man tax du ma si jaaraat mais balaa may ñëw ci loolu Wally est-ce que ba nga ba nga ba nga tàkkee ba léegi parce que ku ne xam na ni fii show bi Sénégal neexul surtout ma nga jël stylu jàmbur nga koy def di ko interpréter ba nit yi di la ci seetaan nit yi di la ci xam est-ce que loolu noonu jot nga ci ay retour tey est-ce que fay na est-ce que affaire bi am nga ci ay projet am nga ci ay contrat est-ce que am nga ci ay publicité est-ce que dugg na daal dara dugg na ci. ah ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla mhm. loo gis rek euh, tepp tepp la. Mhm. te tepp tepp moo gën yure ñun daal ñu ngi sant yàlla. Mhm. ah ñu ngi am ay contrat. ah ñu ngi am ay pub yëpp ñu ngi mi ngi dox daal mu ngi si gis suñu bopp daal. ay pub comme ban. waaw ah, pub yeneen ak yeneen ndax jo pour cosmétique ah mhm. signé nañ contrat maa ngi koy defal ay pub mhm. koroog rek naar ñag woo na ma mhm. ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne ñi ngi wax ci suuf waaw yoo xam ne yoon ma rek tax la maar euh, tey boo xooloon sa staff parce que ñu bay dañ naan Wally Bambey staffam baaxul ñi ko jege staffam baaxul staff bi dëgërul te loolu tey mën na la teel a fay même boo commencé woon sa carrière ak ay say album est bi dëgër na est-ce dëgg la Wally Bambey moom euh, déjà mi ngi ci pour régler loolu. Mhm. ndax tey rek mi ngi doon wax ci loolu. mais Wally Bambey ba ñoom ñoo xamul sax di wax Wally Bambey ba mu commencé ba léegi. Mhm. amul staff xam la la amoon. Mhm. àndandoo. àndandoo. léegi am nga staff. staff bi ñu ngi ci. am nga manager. am naa manager. kan la. Mass Dakar laay. <laughs> Mass Dakar laay mooy sa staff. mooy sa manager mooy sa manager. mais waale ba léegi tontu woo sama question maanaam xarit àndandoo ak staff musical du benn tey boo ne ma da nga yaa ngi préparé yaa ngi toog sa ruq di préparé ay ay ay projet donc war na am benn staff bu dëgër bu nekk sa côté waaw kuy gérer lii kuy gérer lee pourquoi pas waaw loolu ci la ne loolu ci lañ ne mhm. ñu ngi ci ñu ngi ci mhm. liggéey bi mhm. déjà tey war nañoo am ñëw su demee ba dëgër ba suudewu ba lépp taxaw tey rek am na benn euh, benn benn ubbi na benn fans club tey mhm. xam nga ñu ciy dox affaire bi liggéey bi daal ñu ngi ci kaw te fu ne daanaka mhm. am na dëkk yoo xam ne sax nekk ñu fa mhm. mais am nañ fa ay ñoo xam ne genre ménager lañ foofu waaw ndax affaire yi moom da ngay bëri ay dugg ko waaw Wally tey su ma xoolee sa diggante ak influenceurs yi fii Sénégal. Hmm. parce que ku ne xam na ni euh, showbiz bi macha allah ñoom ñooy ànd seen biir. Hmm. ku ci mel ni Bibiche ñu ngi koy gis muy ànd ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bëgguma sax sute tour ñuy defandoo euh, publicité ci soo boutique des fois ñu defandoo ay lii wane ne dañoo sikk jàmm mais ñu gis ni influenceurs yu bari à part benn yoon bu ma la gis ak Ndiaye Lo doo leen fréquenté lu tax beru bi. Euh, parce que man hmm. ñoom damay am dara wala ñu soxla ma ci dara ñu déggoo xama mais su may xarit lañ ñoom ñëpp euh, su ma amee dara dinaa leen ko wax ñu ñëw am ci flow yi am ci xama seen compte doxaat yooyu kon yow da nga jàpp ne euh, ñoom yow yàlla mën a taal boo leen boolee sa dara seen compte day dox mais yow ak ñoom ku ëpp kot yow ak ñoom instant ku ëpp. ku ëpp audience. loolu ngay wax loolu ngay wax. di nga takkale artiste ak tiktokeur. waaw mais tiktokeur yi instant ñoo téye game bi de. tiktokeur yi bu doon artiste yi li ñuy def nii ñu jëlaat ko def ci challenge yi def ci di mm. waaw mooy loolu. mais sa diggante ak Bibiche parce que Bibiche xam nga koo xoolee xam ne léegi tiktokeur en même temps artiste la comme yow li ngay def moom lay def day woy day dugg studio comme ñëpp. mais Bibiche Kero dama toog moom di waxtaan ak moom émission bi yàggul yaakaar naa war nga ko seetaan sur Dakar live ma ne ko bibis est-ce que pare nga pour def featuring ak Wally Bambay mu ne déedéet soo xoolee Bibiche daf la xeeb nan nga gisee loolu. ah bu wax loolu ah man nekkuma ci yooyu ah man nekkuma ci yooyu boo yooyu samay doom lañ xam nga. mais eh. moom dafa bañ. non non non non Bibis mënuma fitrenteeg moom wala mënuma defanteeg moom yooyu. mais artiste la ngay artiste. non mais kii bokkuñu ko man gis nga ma ni may woyee gis nga ma fi may woy yëpp. niveau yi bokkuñu. mais moom daf ne moo la ëpp niveau. non bul wax loolu bi sa taxawee di wax loolu Youssou xam na ma xam Youssou suma doom la xam na ma yow jàpp nga ni fi mu nekk nii euh, yow yaa yaa sut yaa sut booy level quoi. Youssou euh, xam maa gis sax ma euh, bi ma demee Gambie. Mhm. programme bi maa ko engagé man lañ fay kase. Mhm. bu ma sëkk. ma dem dóor mhm. en live waaw concert en live. benn boîte bi muy wax ko mhm. ma door en live yaa ngi may gis tamit feneen ak feneen ak feneen ak feneen may dóor en live ba mu jeex. est-ce que yaa ngi comprendre kon mënuma bokk ak booy mi ci yenn na na ubbi seen bëri ñu xool bul ma dugal ci logo boobu man ma foofu te damay liggéey bul ma taasal daal. léegi tey jii nii boo doon xool yow kan nga mën a tollool level pour def ak moom featuring parce que instant yi artistes yi ku ci nekk yaa ngi teg sa morom loxo ku kan lay doon. waaw euh, ñun nag fi toll nii. Mm. Euh, pareeguñ pour def ay vitrine nii nii dañoo pare pour génne suñu son wane suñu bopp def clip xam nga gars yi si boppam ñoo ñuy soxlaal seen bopp. ok loolu la liggéey bi bu fayee. liggéey bi bu fayee ñu ñii ñoo ñuy soxlaal suñu bopp. Mm-hmm. bu la Maria Sine woowoon featuring nag parce que instant yi mi ngi teg loxo. ñu bari foofu côté boobu tam bëggoon naa fa ñëw parce que tey suba déjà gis naa benn featuring bu mu def ak Baye Mass mi ngi def teg loxo ay ñoom Mia Amadeus ku ci mel artistes yu ndaw yëpp Vigy tey jii nii maar lan moo ko teree tey mu woo pour yéen ñaar ngeen doon dara. waaw xam nga ñun lépp ci début bi wax naa la lu jot yomb lu jot yomb ñu dañuy doog a commencé rek. mais showbiz moo toll foofu. waaw mais dañuy doog a commencé bu ñu waree woo rek dinañu woo. Hmm. waaw toog xaar mu woo la. ñu ngi toog rek. à part moom gisaatoo beneen artiste bu mag boo xam ne bu la woon fi mu ne da ngay def déplacement dem. non ñu ngi toog daal di waaw les portes sont ouvertes ñu ngi toog waaw. non dama ne moom visé woo beneen artiste bu mag boo xam ne pare nga pour liggéey ak moom fii Sénégal. non ñu ngi toog rek di liggéey daal. waxuma ñu ngi toog di ñëw tontu ma. ñu ngi toog di liggéey daal ah. Mhm. ñoom bu ma suñ toogee ñun ñaar. boo mais waaw li ngay liggéey mooy yeex. bu ñu waxee nga naan ñu ngi toog di liggéey ñu ngi toog. ñu ngi ci liggéey bi di pare ñu ngi ci liggéey bi. ñu ngi ci liggéey bi toogoo bu dul am yekk. bu buñ ko yàkkee rek di nga xam ne ñor na. est-ce que mën nga ma si ñamal dara. non ñu ngi ci liggéey bi rek fu mu toll nii déjà. non avant goût pour nit ñi mën a yàkkamte xaar ko lan la album la son la featuring la li ngay liggéey lan la. non ay son la ak clip. maanaam album quoi. waaw ah, non non du album. mais ay deux son trois sons yi rek. ak tàng loo xam ne boo ko defee. Mhm. xale yi dinañ ko mën a changer. Mhm. xam nga mhm. réew mi dinañ xam ne yow am nga loo fi teg loo xam ne. lu leer la bu ko defee. ah ñi ci war a taxaw dinañ ci taxaw mhm. xama mhm. ñuy tëgg mhm. yenn boîte yi ñu fay tëgg chaque ay ay samedi wala xama yooyu ñu fay tëgg nit ñi ñëw di ñu wuy si parce que mën nañ ko nga prouvé teg sa teg sa tànk voilà c'est ça mais Wally yi man ba léegi gisaguma la nga nekk ci benn label est-ce que tey jii label yi ñu ngi lay woo wala yow yaa visé gul kenn parce que xale yu bari buñ commencé dañuy dugg ci ay label pour seen taxaw ay gën a dëgër waaw am na ci yu ma doxoon sax mais je préfère que ma demal sama bopp. comme ban moo gënal mais am na foo xam ne tamit. Mhm. Euh, bëgg naa faa taxaw. Mhm. parce que ñun ay faramaaren lañ. Mhm. bëgg nañoo dem seet si suñu waay suñu xarit suñu tons muy Papis. bëgg nañ koo seeti. d'accord parce ñun ay faramaaren lañ. waaw. est-ce que am na label yu la contacter wala yow yaa visé ba ci yàgg nga toogaat. loolu bëri te may dem fenn comme ça ñu woo ma fenn ma dem xool la ma fa gis su ma doyut ma reculer parce que man lépp lu may def rek dama ciy jox gëdd euh, xam man may kan xam li ma bëgg ñu ànd ci su mënta ne nga dem ma dem waaw d'accord mais Mar euh, première fois bi ngay njëkk a dem concert Wally hmm. ma déggoon fa gis ay vidéo que ni dañ faa sàcc sa téléphone ma déggaat tamit ne euh, ay ay staff Wally ñoo la jëndal téléphone wala marché boppam moo la jëndal téléphone loolu bëggoon naa ci ay leeral. non loolu lépp ñëw na yaa ngi gis téléphone yaa ngi nii lépp ñëw na. damay kan moo ko jënd kan. non bëgguma ci wax quoi. non mais il faut xam nga rek ñi lay topp parce que tamit ñun dañ la doon loolu daf ñu metti woon bañ la gisee carrément ngay ñaxtu artiste bu toll ni yow ñu jël sa téléphone donc war nga ñu leeralaat téléphone bi ndax ñëw na wala ñëwul. téléphone bi mi ngi nii lépp naa ñu ngi ak tey aju nga woote de. yaay téléphone bi lépp naa. d'accord Wally Bambey tey su ma ñëwaatee ci sa ci li nga xamante ne mooy sa parcours sa famille biir Bambey. tey jii nii bu nan la nan dundee parce que boo dafa neexul xam nga yombul du ma ne neexul sax neex na mais yombul. benn famille kenn amu ci benn visibilité kenn fexe rek booster dugg ci showbiz ñoom nan lañ jàngatee loolu. waaw on est fier de moi kontaan nañ ci. xam nañ ne tamit mm-hmm. juste pas n'importe qui mm-hmm. nit ku gëm boppam la nit ku mm-hmm. am vision la nit ko jàmbaare la ndax li mu am yombul gis nga fi lu ne gars yi ñu ñëwee nii yépp ak man ni ma ñëwee ça fait nii booy xale yi mooy tuddal fii ak ak mag ñi njëkk a génn ak ni ma fëlee kenn fëlee ko ci waaw mais gars yi naan waaye dafa xeewi su dëgg neexee rek ni ma fi fëlee du ma koy xew di xew yi ni ma fëlee waaw ku ne nag mën naa yor sa liggéey di la man ci wax sa fël la ku ak ni ngay gisee nan nga toogee sa fël nan parce que man benn vidéo laa gis ngay way euh, son boobu borom kër gars yi posté ko xaw ma ndax yow yaa ko posté xaw ma say xarit vidéo boobu moo def bëm ba nga génn def commencé am compte TikTok yow nan nga jàpp ne noonu man bi ma fëlee mm. àdduna bépp mm-hmm. ñoo booloo ji si wax ñëpp mm-hmm. fii ba États-Unis fu ne mm-hmm. ci loolu lañ doon wax bokkut ak gars yi ñu fi fële ak yooyu mais fële bi nag loo xam ne lu suñ yàlla lu yàlla suñ boroom bëgg a taal jaarale ko fenn fi rek la. Mm. waaw loolu doonu dara ci ñun ci li nekk nii. waaw loolu loo xam ne kii waroon naa fël suñu borom jaarale ko fenn fi rek la. Mm-hmm. waaw mais loolu du dara sax suñ suñ commencement. kon commencé guñ sax. mais Wally harcèlement yi nga xam ne moom nga nekk di dund. ci réseaux sociaux yi ñii di xas. ñii di jàppee la comédien ñii di reetaan ñii sax di la ñàkkal fayda nan ngay dundee loolu. loolu lépp seen bopp lañ koy def parce que man j'attends tout mais moi je réponds pas parce que ça sert à rien faire ce qui ne t'aime pas il mm-hmm. mm-hmm. mais euh, nit ki nekkal ci li nga nekk. Mm-hmm. boo nekkee ci dara. bul déglu ko fonce. du la def dara c'est li nga war a doon suñ borom tracé na ko ne lii ngay doon. mënoo mhm. ci dara keneen mënu ci dara. Mhm. kon force. mais look bi look bi gars yi di wax nag parce que maar dafa mel ni euh, seen rasta yi ngeen di wàccee daf ko mujj déranger ba moom dafa takk bosam ci kaw. non ba ci yaa gisee bi sax ba muy dem dafa takk bosam. dara déranger wu ko dafa bëri ay feem. mais yow looy xaar kon pour takk kon kon danga naan maar bi muy mhm. sol peew. ni koy doon sol da da leen a déranger moo tax mu mu mu génn ko. Ah. yi mu xewal nii xanaa bu bu ko changé di sol mm-hmm. yeneen mm-hmm. nit ñi dañ naan nit ñi li ñoo ko sonal moo tax mu mu kii ko mm-hmm. nit ñi fi ñuy yal nit ñi ñoo amul xalaat boo xam ne yenn genre nit ñoo amul xalaat bu rafet mais Mar moo gën a bëgg di def dara sax nit di ko def mu doon doon kii euh, day doon fierté si moom parce que dane maa maa def lii nit ñëw gis lii ba bëgg ko ba di ko def Euh, balaa may tëj dama bëggoon ñëw ci sa relation ak Bijou Ngoné parce que dama gisoon benn altercation boo am plateau ñu bari naan daf la xaw a vexé ba muy wax ci saras tey ma jékka-jékk saay digg na daf la defal teraanga ngeen àndaat ba nga naan sa lu bari ci loxo Bijou la nekk lan mooy sa relation ak Bijou Ngoné kooku suma yaay la suma lépp la mhm. déjà suma ménagère la bu jigéen mhm. muy Bijou Ngoné fekk na kër sëñ euh, Bali Muntaxa mhm. mu may ma xaalis bu bëri mhm. ci màggal gi ma koy remercier euh, di ko wax ne di ko ñaanal gudd fan mhm. ak wér-gu-yaram mhm. waaw kooku suma yaay sa yaay tey lan lañ mën a xaar lan lañ mën a xaar suba loo xam ne xale yi dañ koy dañ dañ ciy waxaat ni vidéo borom kër bi lii wee woon waaw Wally international ak di waaj lu lu yéeme looy laaj nga ne tourné lan international Wally dama laa bëgg tournée international ah, hmm. international d'accord ah. nga ànd ci ak artiste Sénégal yëpp mais kon est-ce que gisoo woon da waroon dem ci Mia Guissé bi non xam rek man damaa nekk ci ma rox nii di liggéey waaw loolay kaal d'accord euh, nga may waa Dakar laay borom kër doog a wax sa tàggatoo nga xam nga rek damaa jógee studio nii sonn non il faut nga may leen dara xanaa waxu Mass mooy sa manager <laughs> moom la mais xam rek xam nga boo xam ñu ngi ci liggéey bi temps amul fi nii ñu ngi war a def yeneen mais yow yaay artiste bi xale yi bëgg jiiñ jiiñ faramaareen il faut nga may ñu dara tamit waaw ah. kër war naa ni yow yaa di génn mbar bul di gaaw a sa ngéem kër li ngay daaj sa njaboot rek ko ko wër liggéey nga am liggéeyu dépense bi du la waaj ni mbër mu ñàkk jëm sax boo xëyee dem jàkkaarook moom ne ko woo sax du tee mu ñëwaat suba faramare ey eh, waaw borom kër noonu xam nga kontaan naa ah. nga tàggu tàggatoo tàgg ñi lay seetaan sur Dakar waaw maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di mhm. sant Maria Sy Messi Bigué mhm. parce que lii lépp mhm. moom la euh, su ko neexoon mu génn waxee neneen bu boobaa duñ am fit euh, te mu nekk nit ku baax nag waaw ñu koy ñaanal gudd fan mhm. ak wér yaram euh, mhm. di ñaan daal Sénégal mhm. yàlla na fi jàmm yàgg te sax fi waaw di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Mountakha Mbacké ñu yàgg fi lool te wër waaw di leen jaajëfal waaw ngi lay jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal sax laay wax euh, waa Dakar Live ñi nga xamante ne yéen a ñu doon seetaan ma amoon contentement seet si ki nga xamante ne mooy Waly Bambay ça fait un moment boo xamante ni kenn gisatu ko dégg ngeen li mu wax mi ngi toog ci rukam mu ngi préparé ay nee na tournée internationale lay préparé man Waly fi maanaam la star qu'il pense être franchement mu nekk xale boo xamante ni nag buñ ko tegee rek dina dem kon ma leen di joxaat dig dajee ci yeneen plateau ci yeneen événement hello